Famara Kalbert Mané ñu ngi lay nuyu. maa yow responsable politique nga coalition benn Bokk Yaakaar daanaka tendance yi nga xam ni jot na génn euh, fësal na bu baax ki nga xam ni moo di Bassirou Diomaye Diakhar Faye euh, ngir mu nekk ci kanam euh, kii ci jamono ji nga xam ni itam Amadou Ba mu ñëw ñaareelu position bi déjà lan mooy sax xalaat ci déroulement vote bi. non xam nga ñu ngi sant yàlla di gërëm suñu borom bi. xam nga élection moom bu am il mu am bu ñu paree élection il faut mu am tendance yàlla def na tendance bu dégagé mooy euh, dafa nekk en faveur coalition euh, Diomaye bi ñi koy félicité bu baax di ko ñaanal euh, vraiment yàlla yàlla ko gunge bu baax baax ci li mu bëgg a def ci Sénégal donc élection bi moom dana ci élection ci jàmm amul benn histoire amul foo xamante ne vraiment dégg nga fa ay bruit vraiment loolu mooy ñu sant yàlla beneen bi mooy ci biir élection yi ba tey euh, Sénégal bu daan vote wala laata élection yi di am dégg nga coow li nu mu bare ba biti réew sax ñu ci bëri di ñëw fii euh, waaye ba ñu amalee élection bi bal tàkkul sagar xeeñul mu ngi mel ni itam Sénégal dafa màgg ci organiser élection. maa ngi fàttaliku ci benn xalaat euh, loolu waa Mohamed fi nee na dafa bu doon wax français nee na la paix ne peut venir qu'à du territoire xam nga ñun ay famille lañu ay xarit lañu vraiment foo dem daal da ngay am xarit foofu moo tax ay affaire histoire yi loolu moom duñ ci dugg boo seetee nag d'ailleurs euh, ci wàllu politique bi euh, Sénégal moom mel noonu voilà démocratie bi vraiment lu taxaw démocratie bi loo xam ne dañ koy dina démocratie a jaar ci yeneen réew mi parce que fii ak loo kaas kaas ci télé ak loo kaas kaas ci plateau yi ah même objectif la ñu uti mooy jëmale Sénégal ci kanam donc suñu démocratie bi moom vraiment euh, chapeau à notre démocratie vraiment di gërëm ñëpp di ñëpp parce que loolu ci jikko sénégalais la loolu ci suñu valeur yi la loolu boo xam te moom dañu ko hérité te yeneen génération bi aussi. Euh, maa ngi leen ñaax aussi ñu ci loolu. Mmh. wax nga ko parce que gis nañ ni vote bi ba ñu voté ba pare ku nekk da nga jug dem voté ji ba nga voté itam ñibbi sa kër xaar li nga xam ni moom moo ji résultat yi euh, problème amul euh, gis nañ ko itam de part d'autre est-ce que tey da nga jàpp ni nii la ñu war a continuer suñu réew Sénégal. non xam nga man damay damay damay natt d'abord sama bopp man man bëgguma histoire. fu histoire di jur du ma fa nekk du ma fa dem te bi ñuy dugg ci élection bi ci campagne bi avant sa campagne te bu daan wax sama responsable ak militant yi bugguma gen def histoire bu leen dugg ci ay histoire bu leen créer ay histoire parce que histoire baaxul dañu war a dund ci jàmm comme suñu daan suñu maa defee parce que nun dem nañ lël dem nañ lël dem nañ lël ah, dem nañ école lu ñuy maître yi jàngale foofu bu ñu génne dañu war a nekk nit yi correct fii dañuy respectanto ak nu mu métti métti moom dañuy respectanto moo tax appel boobu lancé nañ ko pour que histoire bi bañ a am fii ku wote boo paree nga dem sa kër soo wotee rek boo paree nga dem sa kër bu boobaa donc dootul am problème mais soo toogee foofu moom bu problème amee yaa koy def sa bopp mais ñi sant yàlla comme problème amul xeex amul histoire amul loolu vraiment Euh, loolu suñu jikko la suñu valeur yi la quoi. yéen kuréel bi nga xam ni moom ngeen bokk te seen candidat di Amadou Ba euh, mel ni euh, ban jàngat déjà ngay def ci li leen ñàkkloo élection bi. non non xam nga élection moom pour le xam nga teel na pour ñu wax jàngat bu doole pour ñu wax leen vraiment lii moo tax ñu par élection mais li ma a wax mooy mais c'est que ñun des fois suñu biir am na ñoo xamante ne bu ñu commencé woon affaire élection bi ñoom diseeruñu Amadou Ba. Euh, dafa mel ni daal daal candidature Amadou Ba bugg ñu ko seet nañ ci par exemple directeur général la SACCO bi nekk ci département de Goudomp fii Goudomp ci commune Goudomp bi ay déclaration bi def ay 7TV ci yeneen yeneen de télévision dégg nañ ko bu baax am na wax donc li wax noonu ak li mu expliqué ci ci yi vraiment dafa jaxasoon xel. mooy Souleymane Ndiaye. oui mooy ñoom Souleymane Ndiaye am na ñoo xam sax waxuñu sax voilà dem na télé bi tout mais ba dégg loolu façon jikko bi foo ñu bàyyi parce que yow doo nekk ci ginnaaw Macky Sall Macky Sall tànn mu nekk kii mooy sama candidat parce que dafa am problème ci wàllu constitution bi ci wàllu yoon yow ngay jóg pour pour ñu ay reprendre candidat mën na ko sama candidat bu Macky kii non fi ñuy dem ñooñu ñoo def ñooñu ñoom sont ay ñoom ñooy responsable ci loolu am na loo xam gën sax feeñu ñu day toog seen kër bu Amadou Ba commencé campagne bi ñu ngi toog seen kër mais ñun maire Sénégal c'est pas parce qu'on Macky liggéeyul wala kiw non c'est parce que ñi désespéré dañu am beneen discours bu ñu leen jox et ils ont cru à ça gëm nañ loolu bu doon topp Sonko tap toppul tap Diomaye Diomaye du gagné <laughs> élection bi loolu yëpp am ngeen ko donc euh, loolu moo tax euh, ñun on ne se reproche rien du tout. léegi monsieur le maire ak le comportement de certains acteurs qui ont tardé à accompagner à faire des déclarations c'est-à-dire que sa compagne ak Ba je suis pour la candidature de Amadou Ba man ci Amadou Ba candidature Amadou d'accord naa ci tàdd nañ ko def. mais ak nu mbir mi demee nii déjà yéen est-ce que kon mënu leen toog seen biir ngeen xool lan mooy jafe jafe-jafe bi ngeen waxtaan. xam nga man nekkuma ci bureau central bi euh, nekkuma foofu mais ñun ci niveau à un niveau inférieur dinañ toog def analyse bi mais ñoo ngi invité aussi euh, ñi nga xam ne ñoo ngi ci biir coalition bi ak euh, vraiment parti bi. ñu góorgóorlu pour que vraiment ñu def ci évaluation bi de telle sorte que bu ñu defee évaluation dinañ xam ban tànk lañ taxaw loolu moom lu am solo la quoi c'est vrai élection bi actuellement nit yi bon am na kontaan ñu kontaan nañ kontaan ñu kontaan nañ dañ kontaan parce que dinañ xam suñu niveau présent réew mi liggéey bi dina continuer ñëpp jublu ci liggéey bi parce que loolu moo am importance ay évaluation fii moom taf par ci par loolu amul importance am importance ñi nga ne dañ leen jox liggéey bi nañu commencé liggéey parce que dañ leen jox euh, réew bi tout simplement discours bu ñu daan sédd rek xale yi dañu gëmoon discours boobu mooy xale yi dañu nekk di dawal ay jakarta ñii ay cek-cek ñii ay trois roues je ne sais pas ñii am ñii dañuy dem ci géej bi on a convaincu les gens pour loolu nañuy def lépp pour que xale yi ñu am liggéey c'est ça le plus important nañu def lépp pour que dund bi luy comme ñu day dund bi dafa seet nañu wàññi dund bi xam nañ xam nañ intelligence boobu pour wàññi dund bi am nañ intelligence boobu certainement pour gérer les ressources naturelles am nañ intelligence boobu pour régler les problèmes des enseignants parce que boo seetlee aussi sama co sama collègue enseignant yi ñu si bëri la parce que am na discours bu tenir xam naa dañ yokk salaire yi dinañ revoir indemnité yi pour que service yi kanam comme yeneen service yi c'est ça les attentes. mais beneen bi bokk la ci euh, coalition Diomaye président euh, ñoom dañu proposer a projet projet bi comme ni nga ko waxee adopté nañ ko yow léegi lan ngay xaar si ñoom. man de en tant que euh, exécutif local ba léegi gisuma seen projet bi dama gisul damay dégg projet projet projet mais léegi si ba léegi jotuma document bi il faut ma jot document bi liir ko analyser ko et mais xam naa ne daal fii moom nga def projet woo bañ a def projet woo sénégalais wax na déjà lu ñu bëgg dañuy ne ñoom du ñu woteeg Amadou Ba jox nañ seen kaddu Amadou Ba ñii aussi doon nañ seen kaddu. Euh, Diomaye moom léegi moom na ma nekk président ah <laughs> li muy wax population na ko def de. wala da nga jàpp ne askan wi ñu ngi koy xaar bu baax a baax. ah non non ça loolu moom ñoom xam nañ ko xam naa ne ils sont très conscients de cela dans le cadre la continuité gouvernementale loolu lu am solo la voilà donc euh, je pense que ay nit ay nit responsable lañu dinañ ci taxaw taxaw bu baax pour que réew mi jëm kanam. yow élu nga tey yaa ngi ci commune bu. Euh, simbandi euh, hmm. tey itam am na la nga xam ni tey yéen en tant maire war nga ko taxawee ci commune ba lan moo war doon tey seen taxawaay. Euh, loolu xam nga ñun quand ci wàllu commune bi suñu taxawaay mooy vraiment ci nu programme ci planification yi dem uti financement yi double ci loolu vraiment wàññi abri provisoire yi defal tali surtout que vraiment ñu ngi doon xaar suñu pavé yi. ak suñu lampadaire parce que bu namp aussi euh, vraiment commencé nañ servir mais dafa dafa des donc loolu il faut ñu continuer di di xeex loolu am nañ ay forage ñu ngi jublu ci Alisonto bi am na ñaar forage il ñu régler problème yooyu donc euh, ñu ngi pratiquement à quatre vingt dix pour cent branchement en eau léegi bientôt ñu ak ñu accéder objectif yi bon aussi il ñu dem ci wàllu jeunesse bi clôturer terrain yi am stade municipal yi parce que booy dañuy bëgg football et cetera ñu gunge ci fànn boobu ci wàllu sport bi mais surtout aussi ci wàllu santé voilà ñi nga xam amuñu néew doole ñu jàppale leen ci wàllu CMI bi wala am na CMI école yi élèves yi tout ça màgg ñi nga xamante ne vraiment amuñu salaire amuñu ku leen jàppale ñooñu il faut ñu gunge leen ci wàllu santé bi donc euh, ñi ngi jublu aussi euh, ci wàllu ambulance bi am na benn ambulance il faut ñu utaat beneen ambulance ak Port parce que population bi daf ko soxla mais surtout aussi euh, euh, ci wàllu transaction frontalière bi il faut ñu defaraat yeneen tali yi xam ne dañuy doge RN6 bi dem dem dem ci frontière ba parce que xam nga commune de Simbandi moom première commune productive de Dakar mooy Ndamaras bi donc loolu am solo donc euh, defar nañ tali yi mais xam nga ak comme goudron ñu ko ak gros porteurs yi souvent nawet bi dañu am problème donc loolu yëpp surtout éclairage aussi ci wàllu courant ñu vraiment surtout à la personne de Cheikh Diop, parce que la commune de Sine manifeste que nous sommes à 80%, 90% des villages électrifiés. donc euh, ñu ngi sant le 22 ci biir commune bi ñi nga xam ne moom la ñu pare léegi ñu commencé nañ def ay mise en service loolu grâce PUDC moo tax ñu def loolu. Famara Kalbert euh, Mané ñu ngi lay sant di la gërëm ci na nga nangoo tontu sunuy laaj. merci beaucoup merci. di fàttali ni responsable politique nga Alliance pour la République bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar. coalition Benno Bokk Yaakaar.